pays parce qu'ils pensent que c'est plus facile ou c'est plus simple. Alors, la dernière question, c'est le blocus à la cité Keur Gorgui. J'aimerais faire noter que plusieurs fois quand même, je suis revenu sur ce sujet. Euh, la police, euh, l'État a une mission d'abord de prévention et de gestion de l'ordre public. La prévention de l'ordre public, ce sont toutes ces mesures de police administrative qu'on peut prendre en amont pour éviter des troubles à l'ordre le mois de juin, il y a eu beaucoup d'appels à manifester il y a eu beaucoup d'appels à l'insurrection et nous avons vu que tous les déplacements d'Ousmane Sonko se sont soldés par euh, des casses, des pillages et des morts. Et pour éviter cela, nous avons pris, euh, l'État a pris des mesures de prévention en restreignant la la circulation dans le quartier de Cité Keur Gorgui aujourd'hui il n'y a plus d'appel euh, à l'insurrection il n'y a pas euh, de risque sur le trouble à l'ordre public donc il n'y a aucune raison de restreindre la circulation dans le quartier euh, de Cité Keur Gorgui eu égard juste aux habitants de ce quartier-là qui doivent tous les jours euh, prouver qu'ils y habitent, qu'ils y vont, qu'ils reviennent. Donc c'est juste une mesure euh, de prévention, une mesure administrative qui a été levée parce que le risque ne se pose pas. Et comme j'ai toujours dit, le reste, les questions d'arrestation ou ce genre de choses, ce sont des questions judiciaires, même si le procureur on dit qu'il dépend du ministre de la Justice, euh, il y a la disponibilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais après il des questions autres sur le moment ou ce genre de choses qui dépendent du procureur de la République. Et malheureusement ou heureusement, je ne suis pas le procureur de la République. donc je vais le résumer en wolof ni ma leen ko waxee bu yàggul rek defe naa fii la woon wala feneen mbiru cité kër góor gi la ñu euh, dakkaloon dem beeg dikk bi dafa am lu ko waraloon li ko waraloon mooy. Euh, dafa euh, amoon ku fa dëkk xam ngeen ko Ousmane Sonko daan woote ci euh, nit ñi génn ak xuloo xëccoo euh, insurrection woote dox doxu ñaxtu ak yu demee noonu loo xam ne day indi trouble à l'ordre public état nag dafa am ñaari mission yoo xam ne autorité administrative moo xam préfet gouverneur ba ñi nga xam ne moom la yërif police am na lu ñu leen jox mooy li nga xam ne mooy mesure de prévention ndaxte état du bàyyi ba dara am rek mu jóg ne da ngay da ngay dakkal euh, nangam ndax dara nga arrêté ko déedéet bu fekkee da nga am ay preuve wala danga gis loo xam ne mën na indi trouble à l'ordre public li nga xamante ne moom la la yoon may mooy nga dakkal ko li la koy won rek bés bu ne mooy xew-xew mën na fi am nga bëgg jàdd à droite policier bi ne la doo jàdd à droite te pourtant am nga liberté jàdd à droite wala jàdd à gauche nga bëgg a egg fenn ñu ne la fii nga yem wala match am ñu ne la doo egg ba ci parkingu Léopold Sédar Senghor te bu la neexee mënu nga fa àgg donc tant que risque bi bi nga am l'autorité administrative mën na am sañ-sañu ne la def l'autorité administrative nag mën nga jàpp ne gouverneur bi la préfet bi la sous-préfet bi police lay la police bi la commissaire de agent de police nga xam ne moom nga dajal bëgg jàdd ci biir koñ mu ne la déedéet fii mënoo fi jaar gaareel fële donc bu jafe-jafe amee te jafe-jafe yooyu am na ndaxte gisoon nañ koo xam ne saa yu xëyee ne génn leen xale yi génn leen joxe leen seen bakkan def leen nii def leen naa ba ñu gis ne dëkk bi yëpp fu ci ne fu mu génnoon dina am ay yàq ay toj ay boutique jàmbur yu ñu yàq ak tamit li nga xamante ne mooy ay bakkan yu loolu nag bu amee état dafa am wàllam wàllam mooy jëfe loo xam ne day dakkal loolu wala day fexe ba du am mooy prévention loolu nag loolu la état di defoon bu ñu demee nag ba loolu amatul mois de juin ba mois de juillet gisatuñ loolu am li état war a def nag mooy yëkkati ko yëkkati nañ mesure boobu ndaxte nag am na ñu fa dëkk te tamit moom sa kër di dem ak di dëkk defoo dara euh, ñu naan la foo dëkk ak foo foo war a dem ak yooyu loolu du yoon mais nag bu fekkee dafa am lu ko justifier état da ko war a def. comme amul lu ko justifier dégguñu kenn ku woote euh, marche trouble à l'ordre public insurrection donc loolu amul li ci des nag ni ngeen ko laajee léegi arrestation ak yu ne yu demee noonu loolu mbiru justice la comme ni ñu leen ko waxee procureur euh, juge mooy defar décision bu defee décision jox procureur li ci des ñoom ci wàllu justice ñoom ñoo ciy décider donc loolu moo doon kàddu yi defe naa benn waxtu lañ amoon bëggoon nañ mu gën a gudd mais li bi ñuy wax rek bu ku nekk posé benn question dinañ mën a jël fukk mais bu ku nekk posé ñaari question bu juróomi waxee donc fukk lay doon te du ñu mën a eggle li donc loolu moo doon kàddu yi monsieur le ministre maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm mbokku presse bi di gërëm tamit ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew jërëjëf. Voilà, merci beaucoup euh, monsieur le ministre du commerce de la consommation et des PME porte-parole du gouvernement merci monsieur le ministre de l'eau de l'assainissement Serigne Mbaye Merci également à euh, Monsieur le ministre Issa Diop, ministre euh, en charge de la prévention et de la gestion des inondations. Merci également à euh, vous, chers euh, collaborateurs des ministres, chers amis de la presse, jërë ngeen jëf, merci beaucoup et on se donne rendez-vous prochainement pour une autre séance.